faslu lii ab dog la fiihaa ci caay-caay ay fi rasaayil mu ne waxa sama seddale na as soofi yu soofi yu ba mën naa am imaamul xasaali lii la jublu waaye tuddul kenn lil xas may ni ñeen ñaari xaaj ya tilka rasaayil yooyu di caay-caay caay yi daal xaaj nañ ko ñaari xaaj bi xayri may ni ci dudul nar zahiratin caay-caay yu di aji feeñ bu baatinatin ak yu di aji nëbb am na caay-caay yoo xam dana fàng yenn yi nag dafa nëbb mu ne fa zahiratu aji xaraamun aji araam la fatlub sàkkul almubaadarata gaayu tuub ga caay-caay yi nga xam daf ne fàng moom araam na gaawal tuub ko bu fekkee da nga caa def benn fu waajibun aji war la ala mukallafin ci mukallaf xaqala moom xellu na alkafu fegu xan xaawalif caay-caay ya xaw fa rabbi ngir ragal borom nit ñi yàlla màgg na kon nag mukallaf war naa wattandiku xeeti caay-caay yooyu da koy wattandiku ngir ragal jëmmi suñu borom tabaraka wa taala waaye bu mu ko wattandiku ngir nit ñi di ko xas xeer caay-caay yu feeñ yi nag xëyibat ni ki jëw jëw mooy tudd sa mbokkum jullit fu mu nekkut te la nga koy wax bu ko déggee mu naqari ko moo xam dëgg la wala du dëgg namimatin rambaaj rambaaj mooy jële ay wax ci nit yóbbu ko ca keneen ngir bëgg yàq seen diggante wakasib ak fen fen mooy wax loo xam ne dëpp wut ak la am wala ba nga koy wax amoo ci loola leer donte noonu la am itam xeetu fen la waxaani sil ak aji teññi ngiñ ngiñ lu teññi mooy giñ ne danaa def nangam te néewa incha allah te loolee ngay wax ba nga koy wax ay fen nga ci jublu woon wala amoo ci woon lu la leer kon boo ko defut am nga bàkkaar bu rëy moom la tudd tudde alyeminul xamuus mooy ngiñ li nga xam ne day nuural boroom ci ay bàkkaar mooy nuural ki ci bàkkaar mooy tax da koy nuural ci sawara kon giñ loo xam ne yow mi koy giñ wóor la da ngay fen wala li ngay giñ wóoru la loolu ci bàkkaar yi gën a màgg la bokk mooy di sot nit ngir dangeen bokkut deret wala da ngeen a bokkut xeet wala da ngeen a bokkut diine wala da ngeen bokkut tariixa bu fekkee ci xeetu li ngeen bokkut aw xeet wala bokku leen deret moo tax nga di ko sot loolu dañuy tuddee racisme bu fekkee li ngeen bokkut tariixa wala bokku leen diine moo tax nga koy sot loolu mooy fanatisme yépp dafa araam ndax ki nga xam ne dangeen ngeen a bokkut tariixa waaye bokk ngeen di wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah booy wutum noonu bu ko tànn ci kookee kookee du sab noon moo tax sëriñ bi dana wax ne wala tuhaadoo man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allaahu képp ku ngeen gis muy wax laa ilaha illa allaahu bu leen ko defum noon kon nag li gën a bari ci ñuy xuloo di xuloo ci mbiri tariixa dañoo dégluwut waxi seenub sëriñ waaye loolu daf leen ko tere xeeti parloo yu bàkkaar yu réeréy la wasuuri ak i neen mooy di seede loo xam ne wóor leen du dëgg ngir bëgg lu la cay neexale doom dem ci xaakim ba diw de mu def nangam ngir bëgg ñu yeel ko bu ko defee waa ji dalaa gisoon ci suuf nee la boo fexee bañ yeeyal ma danaa la jox nangam loolu xam nga ne lu mën a yàq la ndax xaakim bi du mën a xam wax nga dëgg wala waxoo dëgg moo tax ci bàkkaar yi gën a rëy la bokk wal fasaay ak xeeti ñaawteef yépp moo xam ne looy wax la wala looy def wama ak loo xam laa yaani du jariñ min xawlin ci wax aw fihlin wala jëf li gën a gàtt daal lépp loo xam ne ay wax la wala jëf te amul njariñ loola ci bàkkaar yooyu la bokk wama ak loom laa yux nii du jariñ wama laa yux nii ji da koo firee wax ne wama laa yax nii ndax ñaari baat yi ñoo bokk kon daal lépp loo xam ne ay wax la wala jëf la te amul njariñ rek xam ne bàkkaar la wasaay ak dox lil xaraam jëm ci lu araam fa nga jëm wóor la na ne lu araam nga fay defe da ngay sàcc wala ngay njaaloo wala ngay defe lu araam dox boobee sax araam na wan naa ak xool lil xaraam ñeel lu araam xool loo xam ne waroo koo xool xool bu njëkk ba nga xam ne tayoo ko moom jéggal nañu ko waaye xoolaat ga nga xam ne yaa ko jublu googa lañ lay jàppal wa kulima lépp loo xam ne xabaxa ñaaw na fil kalaami ciy wax jaar ci baat bu ñaaw ni ki saaga wala turu awra boo xam ne dañ ko war a suturaal nga jaar ci digg ba bu ñu waxee ab sawukaay nga jaar ca tur ba bu ñu waxee buntu suuf nga jaar ko ca digg ba te fekk ki nga koy waxal mënoon nga ko waxee noo xam dana ko xam te doo jaar ci baat boobu waaye su fekkee da ngaa séq ak nit dara mu def la lu ñaaw nga dem di ko boole jeeg xaakim bi mën ngaa jaar ca kaw lam la waxoon ngir mu xam nan la la tooñe ndax alxuraan moo ne laa bul al jahra bi sooyi min al xawli kiñ tooñ daal muy boole ji ak tooñam mën naa wax na ko waaja a tooñe ngir ñu xam ban atteyee ci moom kooku rek lañ ko may waaye koo xam ne mën ngaa wax wax joo xam ne ki ngay waxal dana ko xam te doo jaar ci baat bu ñaaw ba boo jaaree ci baat bu ñaaw ba xam ne la nga def araam na waaw ka mubaasharati ak niki ak jooñ joog moom lu araam biir fari ji ci pëy niki lu mel ni ànd koo xam ne du sa soxna loolu xam njaaloo la loolu araam na aw siwaahu wala lul jooñ joog moom ci pëy mi nit kii di jonjoog moom wala di ko fóon te tem araam ci yow loolu tam ci yu araam yi la bokk wan nutux ak tudd bi bii ci lu araam lu araam bañ koy bañ wax ko ci solaam yi ayda ba tey naaw tere nañ ko wax gi nga koy wax tere nañ ko walkat bi ak bind ko rus nga ko wax nit ñi koy dégg waaye bind nga ko leetar wax ci sa wax ju ñaaw loolu itam araam na wasamaay ak déglu ga foo dégg ñuy wax lu araam soo ko mënee tere da koy tere soo ko mënta tere nga jóge foofa ànd ci ak sa coobare di ko déglu yàgg ko koy wax yéen a yem wastimaal yi ak jëfandikoo yu araam xeetu yu araam yépp jëfandikoo ko ci bàkkaar yu mag yi la bokk wa dammi misli muslimin ak dereti kem ab julit bu ñu waxee kem ab julit loo mel ni ab simiyu ab yahudi wala nasaraan yu boo xam ne dafa nekk ci biir réewu julit yi julit leen aaraale na nga war a wattandikoo dereti julit na nga war a wattandikoo dereti simiyu boobee aw maali wala alalam aw misli wala lu mel ni alalam itam ko war a wattandiku waroo caa jël loo xam daal léewu la kasaa niki nii anjiraanun ak tong lëxoo ñeel ab julit ab julit lu ngeen mën di séq waroo koo tong lu ëpp ñetti fan ndax yonent bi sallallahu dafa waxoon ne laa yaxilu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaasi layaalin yaltaxiyaani fa yuhridu haasa wa yuhridu haasa wa xayruha aw wa xayruhuma allasi mooy ñoom ñaar dañuy tongonte lépp ñetti fan buñ tasee kee du muyu fee kee du muyu fee ka ca gën nag mooy ka njëkk a nuyu moroom léegi nag soo ko njëkkee nuyu ngir bëgg a génn ci tongoo gi yow amatoo bàkkaar su la delloo nuyoo moom itam ngir bëgg a génn ca tongo gi yéen ñaar ñëpp seen bàkkaar jeexam waaye soo nuyoo bañ laa fay moom yow génn nga ca moo ca des waaye doo yem ci nuyu ko dong da ngay tàmbali wax ak moom ndax boo nuyoo ne cell mën naa mu ñaaw njort defe ne la nga jàppoon ba tey bàyyi woo ko kon soo amatee yeneen ñetti fan yoo xam saa boo ko nuyoo da nga ne ceel rek doo wax moom benn baat defaat nga bàkkaar bu mel ni ba nga defoon kon da nga ko war a jégluwaat ndax dañuy bëgg ngay wax ak moom ngir mu bañ ñaaw njort ci yow moo tax hadis ba nee na inna abwaabal jannati tuftahu yowmal xamis wa yowmal isnayni fa yax fa yuxfaru li kulli abdin muslimin laa yushrik billahi sayan illa rajulan kaanat baynahu wa bayna rajulin shahna fa yuxaalu anziru haasayni hatta yastaliha mu ne bunti àjjana alxames bu jot ak altine bu ne dañ koy ubbi bu dee jaam bu di jullit bu ne danañ ko jéggal ndare ki nga xam day bokkaale yàlla ak moom lu mat weer ba ñaari weer itam lam def jublu gaa tax adaamu ni ki noonu tam boroom kër bu tongook soxnaam ngir jublu koo jaaj yar ko ngir lam koy digal mu def ko wala sëriñ boo xam ne dafa tongook ab dongaam ngir jublu koo tekki yoon yooyu moom gàpp ba bu ëppee ñetti fan dem na ba ñetti weer itam loola du tax mu nekk loo xam ne araam na bu ko defee nag mu ne kon hijraan ak tongoo loxo ñeel ab julit li xëyri xàqi sar ñeel lu dul àq yoon kon paxsar na nga wattandiku ku loxoo lépp yi ñu ne na nga ko wattandiku wakkaati xaar yi ak ni ki xeeb ab julit di xool nit di tëfli di ko wan ni ko dama laa xeeb loola araab na wakkal ihaani ak ni ak ni ko di ko doyadal yàpp ko loo yëkkati teg ko ci deram te li nga koy wax néexu ko loola tam mooy masla mooy baslu dunia li aslaahi diini awil jaahi awil ardi loola moom dagan na mooy di ko wax lu ko neex loo xam ne loola naqariwut yàlla walla da koy defaree sa daraja wala sab der loola moom dara nekku ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne woon umirtu bil mudaaraati kama umirtu bil bi dañ maa digal may maslaa ak nit ñi niñ ma digalee may joxe ay farata kon nag maslaa sax ba ñuy lim saraxee boole woon nañ ko ci maslaa kon sarax la kooku ma bokkut ak mu daaxana wal xiyaanat ak wor di ko wan ci kaw loo xam ne bokkut ak li ngay nëbb ci biir wala nga koy wax loo xam ne naroo ca dara mu ko yaakaar yooyu yëpp bàkkaar bu rëy la wakal mu maakarati ak niki ki kenn ku ne di fexeel sa moroom lu bon loo man ci lu bon nga koy fexeel sa moroom loolu julit waru ko def moroomu julitam kon loolu tam ci bàkkaar yu mag yi la bokk wal mu jaadalati ak bii jonte fu ngeen nekk di coowoo ak xëccoo ci loo xam ne teguloon ko ci wenn yoon seen bakkan dong ngeen ko teg loola tam ci xeetu bàkkaar yi la wa kulli faasidin ak jëpp aji yàqu minal muamalati ci jëflante yi bépp jëflante boo xam ne amalu la njariñu àddina amalu la njariñul àllaaxira loolu ci bàkkaar yi la bokk